muy mag di xalé ñom ñëpp téwé won nañu cérémonie d'ouverture bu ñeel 15e édition bu centre de perfectionnement de Anne nek Yaraax Ferraille tey tagat ndaw ñi ci walum football Mafal di ab encadreur ma ngay lu bës bi tey gërëm bu baax Cheikh Ndom ci initiative bi di dëggal itam liggéeyu maire bi naam sax amna lu dess ci ñom encadreur yi nous ma jangate moy lu parce que comme lo la wax sank rek Cheikh ak encadreur yi ñun amuñu quoi ñun ñoy wax bobu bo légui ñun ñoy def di wax maire bi mi ngi ci japp bu baax ci voyage boy euh, partenariat bi ak Fos sur Mer ba mu ba vraiment mu ngi accompagner à 100% ci de des na mais lu mu dess au niveau des encadreurs nous xol dans ñu ci caatu yarax di ab mbeur di ñaan xalé yi nekk ci bile centre dem ba nekk ay professionnels yu mag ci football bi. ñu koy rafetlu nak bu baaxa baax waaw di ci gërëm sëriñ bi nga xamné mom tamit ak suñu coach Cheikh Ndom nga xamné seen djégo yaat na ci bu baax a baax ñoom tamit avenir xalé xale yi lañ xool waaw ñuy ñaan nak maam ñu fi nekk manam doon ay professionnels. waaw chaque année ñu am ay professionnels yu ay pro yu bari yo xamné dañuy signer à tout moment ñuy signer manam ndax yarax

C'est boo seetloo am na ay ay équipe yu mag yu nekk fi Sénégal fii fii lañ doon taataanse fii lañ doon et souvent comme nous le disons ce sont des écoles de foot qui n'ont pas les moyens mais qui ont les moyens de leur cœur li nekk seen xol la ñuy génnee moo tax souvent dañu am réussite par rapport à ce qu'ils font donc euh, on ne fait que les que les encourager les remercier et leur assurer de notre soutien à tout moment parce que c'est notre devoir là c'est lié à rien d'autre qu'un devoir que nous devons rendre par rapport à ceux qui encadrent nos enfants, nos cousins à tout instant. Donc, euh, félicitations, chers, félicitations à toute l'équipe, félicitations à tous les centres qui sont ici présents, en sachant que ce qu'ils font, ils le font réellement pour nous. Babacar Meng, de maire bu Anne Bel-Air, teewee ba rafetlu amal ngir ndaw ñi D'abord euh, saluer cette euh, jeunesse en fait euh, sportive de la commune de anne bel me réjouir du bon travail qu'ils sont en train de faire déjà auprès de cette jeunesse, mais surtout l'engagement qu'ils ont d'abord pour la promotion du sport et particulièrement du football. Nous avions l'habitude de travailler avec l'amicale euh, des heures. Et régulièrement, en tout cas, nous avons une délégation de jeunes d'Anne Belair qui sera en France au niveau du tournoi de Fosse-sur-Mer, donc à côté de Marseille. Ce qui fait que les deux dernières éditions, en tout cas Anne, était l'équipe championne de ce tournoi qui existe depuis 32 ans. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est des jeunes dont nous sommes très très fiers et dont nous avons en tout cas l'obligation de veiller effectivement à ce que tout se passe bien, mais qu'à chaque fois que l'occasion se présentera, donc nous ne manquerons pas d'être là pour leur témoigner d'abord, en tout cas de l'affection que nous avons pour d'abord les dirigeants, mais également encadrer ces enfants, parce que je crois que l'avenir, c'est eux. Marie Diallo de mars bi di sant Cheikh ci liggéey bi ndax mi ngi jàppale ndaw ñi rawatina waa Feeraay. xam nga dañ ne mois jigéen ñi waaye jigéen ñi moom toujours dañoo am seen chaque jour rek euh, dañoo am ñoom ñoom ñoom moom bës yëpp moom. Euh, dafa am nag bés boo xam ne ñoom lañ ko jagleel lool moom euh, dañ ko def noonu waaye pour aada ni waaye jigéen moom xam nga ku si nekk rek xam nga jigéen moom chaque jour maa ciy kontaan ndax Cheikh. mënoon na jël journée bi daal di koy jox ñeneen ndax équipe de foot bi ku ci sa doom nekk rek yow sa xel day dal sa xel day dal ndax xale yi nekkuñu di foo di taxawaalu xale yi nekkuñu di tux xale yi nekkuñu ci leneen loo xam ne daal day tiital seeni ay parents wax dëgg yàlla xale yi dañu boole jàng ak football kon ñun loolu ñu ngi koy rafetlu torop torop torop

di rafetlu teewaayu ñëpp te ñëwaat ci programme bës bi. nga am journée nga invité nit ñi wuyu la surtout ak autorité ji fi ñëw yoy tam sant yalla la quoi donc mo taxé tam depuis ce matin lañ fi nek jusqu'à nos jours ce matin amu won pipi yi ñoo doon jouer manam euh, débutants yi ñoo doon def ay ay ay ay mas bimu mu après éducateurs yi comme ñun ñoo doon jouer ak anciens internationaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekkon fi ah, def na lu nekk ci football yara bi lolu wesso ñu ngi donc euh, la ouverture bi donc démarrage bi aussi ñu amone ay pipi ak Benjamin yi nga xamné ñom ñoo dem en France cette année ci au mois de mai ñun leen wara yobbu ñom ñoom ñoo doon football ak wa CPS bi mu jeexoo tam ñi rendre hommage l'année dernière parce que dem neen France inshallah yalla may ñu ñu jël fa trophée ak l'année dernière moy promotion 2017 et 2018 yalla may ñi gagné leen xalé yooyu ñu bañ leen fàtte ñu wo leen pour sargal leen ñooñu ñoo doon jouer bi lolu weesoo aussi tam ñu def promotion bu nga xamné nous avons xam ne ñoom formé si CPS mooy génération ñoom may ñoom Pape Maysa Il y a un maa au passage parce que moom mooy premier recrue CPS moom yàlla def na mu signé contrat fale au niveau hein, de la France euh, troisième division donc euh, mu ñëw teew ak promotion une deuxième promotion bi avons ñoo doon def jongante yi ñoom ñoo mujjee toj géew bi waaw loolu day wane lancement activité euh, de 2017 ak 2018 2019 vraiment di content si taxawaay bi surtout ak aussi Euh, marraine biñ ko tuddé muy sama sœur Mariette Diallo diko ko gërëm parce que gis nga teewaay bi mu dem surtout aussi avec Moussa la maire mi nga xam ne ko accompagné Babacar Mbengue accompagner ko Ismaïla Diallo inshallah mom moom tam nga xamné ne suñ grand frère la aussi na taxaw na ci ak euh, suñ champion mbër mi nga xamné donc mom tam il était là voilà wa chat bu yalla donc ñoo ñëp ñëw mu ala daw ma gis nga ko ak suñu jigéen ñu ñaaw li sama jarbaat yi nga xamné donc dañ ñoo assister benama di content bi nga xamné fu content yam dal l'essentiel dal vraiment di sante yalla xol bi sedd bi nga amee journée nga woo ñu wuy si la loolu mënoo ko fay quoi di sant bu baax. moom ba tey di am mbégte ci amicalu encadreur yu aan yépp ba noppi di ñu xamal ne football locale bi moo ngi dox bu baax moo ngi gërëm itam ñépp ña teewe woon xew-xew ba ak képp ku ci jàpp. Euh, les amicales des encadreurs des écoles Fuda Hann ñoo ngi ci def jéego bu am solo parce que tam euh, monsieur le maire dañoo am benn coopération boo xam ñun ak Fass sur la chaque année aussi. bi 7e année ñuy dem au niveau de la France xam nga tay bo ñëwee deux catégories ñi dem l'année dernière ak yëpp nga am nga jël trophée bi ah kon dalay wone football à la base au niveau local à Hann mu ngi développer. sant Yalla bu baax gërëm ñëpp ak surtout suñu staff technique bi nga xam ñom Serigne Fall ci kessu la bokk Amar Fall ci président bi Mohamed Ndaw Diagogne Pape Amar Sar Khady Sall staff technique CPH yëpp parce que sans ñom aussi ñu tam duñ kii peut-être man maa ci nek di wax mais ñom ñom ñoy li nga xam ñom ñoy ñooy lu bari waaw di ñaan aussi tam sélection bi nga xam war nañ ko yobbu cette année ci en France au mois de mai ngeen ñaanal ñi demaat jël raaya gi parce que jógee Sénégal dem ba Europe hein fekk fekk ay nit ñu ñuul nit ñu weex jël coupe ñëwaat mu une deuxième fois loolu tam lu rafet la kon di ñaan yalla affaire bi sotte jàmm